ahousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim raditu anil mawla taala lasi rabba fu aadi wa axnaani wa akrim bihi rabba naajaytuhu biya nasiru ya wali kafaytani iblisa inda jeewali mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di jiital ci ñaan gi ak siyaar bi Serigne Mouhamadul Muntaxa Mbakke xalifa général de yàlla na ko suñu borom yàggalte te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal Serigne Touba lépp mu defe ko nam ko soobe di siyaara mboolem kilifa diine ak kilifa aada yépp di siyaara baax alxaaji Abdul Fatah Mbacke ibnu Cheikh Amadou Fadal di ko ñaanal fan wu gudd ak wér di siyaara baax Serigne Daamu Atta Mbacke xalifa Cheikh Ibrahima ñaan sunu kàddu fekk ko ci jàmm ak tawféex tey ñu ngi ñëw fii ci sunu émission bi nii seet si jàngkat yi tey nu seet si Baye Modou Mamoun Diong ci sunu site bi ñuy wax waar wi yi ñu seet si Baye Modou Mamour jong fii ci Daaru Minam ci wetu kër Serigne Moussa Ka ngir bëgg leen bëggal ci xasida yi ak xam naa ne taalibe yi ci bari namm nañu kàddoom ndax am njàngam namm ni tamit kanamam ngir gis ko ngir bége ko Baye Modou ginnaaw bu buñ la siyaare se ñaanal la fan wu gudd ak wér eh, ñëw tey nag ngir waxtaan ak yow ci xasida yi ak njàng mi ñu jox la nga nuyoo ba noppee ubbil nu xasida gu gàtt rek ñu soog a tàmbali ci wolofali waaw yàlla na yàlla nangu liggéey bi ci barke borom Tuuba nafa ni man lam yakun bi waladi wala bi walidin fata ba xaladi nafa ni man lam yakun bi waladi wala bi walidin fata ba xaladi allah la si wulida xayra waladi wa xayra walidin bi xayri baladi bi ali وسابي الأمة صلاة الأساسي من شمدي لم يخلق مثله بك لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجارا في برايا صمدي مدى لنا الإسلام والكبرى معه وبنشيته لكل سماء يقول بشاعري والباطن من أتاه لله في كل سماء xidmatu anul u bi sabat wal istixaamatan wa safan wa bat li baana kawnul mustafa raisha li kulli man xad fudil roosha xadamataaw fawqa kulli raqaba min ustaar alxuru kulla man xaba xul xadamaaw fawqa kulli raqaba min ustaar alxuru kulla man xaba muhammadun misaalu lam yaati فيما مضى وأبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد له سيادة له البراءة يوم لست ولد الصفاء ونبي ورسول والقليل وهو الحبيب والإمام هو دليل برأه بدي من خير جمال وسان قدوس عن خير كمال كون النبي المنتقى محمدي خير الورى مختار عند السمدي بركة برم توبة آه. jërëjëf Baye Modou Mamoun Diong yàlla yàlla wéral baat bi te gën laa may aw fan wu gudd macha allah Baye Modou yow nañ lay wax jàngkatu xasida waaye yow nit ñi liñ la gën a xamee mooy ay wolofal loolu lan moo ko sabab te ndax da nga dul jàng ci xasida yi lu bari wala wolofal yi dalaa defal mbir rek ñu bari wolofal yi la boo waxee ñu ne kii jàng yaman wala ñu ne góor barsan gi wala ñu ne kii jàng yooyu. loolu boo gisee mu am. Mm-hmm. ñiy déglu ñoom daanaka ay waxi wala fa gën a ñor. Mm-hmm. ndax xasida yi jàng kër di jàng xasida. Mm-hmm. jàng wolofal nag day nekk loo xam ne du ñëpp a ko mën a def. waaw. jàng jàng xale yi ciy jàng sax dañu ciy coppati ay bayit rek wax ko dugal ko ci seenum njàng mhm. waaw sakka na la ko njàngam mhm. man nag damaa mën a jàpp euh, ak wolof a jàng ko ba mu jeex tàkk mhm. jàng mu leer mu mu mu wér mu teey ñoom nag mënuñu ko bu ko defee ne ñuy déglu it euh, daanaka li ñuy dégg ci xasaay bàyyi na ak alxuraan mooy li ñuy dégg nag ci wolofal woo xam ne mën nañu koo dégg te loolu ngay dégg ñu wax naan yaman beeg barsan beeg yooyu. Mm-hmm, mm-hmm. nga xam nga eh, eh, ñu koy dégg dégg lu yàgg. Mm-hmm. ku ko jàng ba mu jeex wala jàng ci lu jafe na. di ñu ko def. waaw su ko defee nag ñooñu foofu lañ muy gën a ràññee. ci njàngum xasida waaye nag sëriñ saa yu so so sama sang ba. Eh, musuma koo jàngal benn wolofal xasida rek laa ko daan jàngal. te ca laa ko jàngalee ba mu ne ma maa ngi bëgg sa njàng. te mhm. ko ci jàngal ba mu mag waaw kon de léegi ma jàng ci xasida moom tubaarkàlla mhm. soxna may boo faree moom mhm. mu soxna may moom mam borom tubaab borom leetul xadar kooku moom ah, suba jàngaa tuuti rek mu ne ma waaw di jàngale ci géej gi moom war a fa li la gën a bëgg ma jàng géej gi wala yaman bi wala gisaw sakkoor jéeri ji yooyu yooyu ko yooyu dama daan jàng waaw mooy tamit demoon na ba saam jàng loolu ko ci ñor su ma gëjee gis sax daf may yónnee woolu su ma dikkee nag mu di ma xamal ne ana foo ne ko maa ko mbàkke léegi mu ne ma del jàng rek ba bàyyi li ngay def tey jàng rek ma ma ne ci jàng mi nag soxna may mooma dafa jàng kat man bi ma jógee di gone 64 ca kaw la tàmbalee jàngantu di xay lu góor boobu dencuma bëgg xasaay ci di jàng waaye nag musuma ñàkk a liggéey boobu damay liggéey boole njàng mi ak liggéey waaw dama daan liggéey rek di njàng moom mu nekk lu ma bëgg. Hmm. Euh, bu nu amee ay daayira wala ay ay cant yooyu ma jàng ca. Hmm. waaye defuma ko métier. li wax na xasida yi daa fiir neexut a booleeg dara. déedéet ah dañoo dañoo dañoo dañoo dafa dafa dafa gën a nooy. Hmm. waaw xam nga métier xëy liggéey ci sa palaas liggéey ba wàcc jot nga wàcc. dem jàng dem jàngi yóbbu. lu sa métier lu métier moo amul. commerce waaw jënd ak jaay laa daan def ba mu jógee ci daara ji mm-hmm. sama baay damaa jox rakkam mm-hmm. ba fekk muy def commerce mm-hmm. di jaay piis mètre waaw ah. loolu laa jëkk a def ba mu yàgg eh, ñu ñu bàyyi jaay piis ba sarté bitig bi ci affaire yi yi jigéen ñi jënd ay poudre ak ay pastel ak ay jéng ak ay fulaar ay yëfi jigéen yooyu nga daan jaay ay dàng ak lu ne waaw <coughs> laa nekk tool njaayam lawbe la njaayam lawbe nga tëgg la. Ah, kon njaayam tëgg damaa juum. bokkuma <laughs> ah, nga naan ci aadama aadama aadama laa waaw. <laughs> Ah, dem ci kii nan la bàyyi nga jàngal nu xasida yow gën xasida nga njëkk jàng wala nga njëkk mokkal. waaw si ndiini kon laalal nu ci tuuti ay bëy rek xam naa du ci xaj waaye da nga nu ci daggal tuuti laalal nu ko bismi barke borom Tuuba yàlla bi Mustafa sindiidi yàlla wa bi xalilika Ibrahima yàlla wa bi kalimika Muusa saani wa bi Suayb wa yoonu sa yas yi wa sakkari yaa yahyaahu dayalaw harunu yoosa ilyaasi wa damada wooda wasal kibli isaalu dayalaw wa yoosufin wa biisaaxin wa xayrimu min anbiyaa'in ursilin lakayalaw wa bilmalaa'iki turan suma sabatin jibril suma bi mikail ayalaw وصاحبنا في إسرافيل خابد وإن خلائق أسرائيل يلاو وبصحابته زم أولياء إيمان والحاملين من الأخبار يلاو وبالصديق وبالفاروق ثم بسنورين ثم بسبتين يلاو بما عليك سلام ما شاء يا سافي أبي فاتت المدى allah eh, jërëjëf waaw eh, ñu bari nag moom dëkk bi bi la fi xam loolu nga wax kër soxna may lan la xamee soxna may lan moo leen boole ba ngeen xamanteeg sa kii booba sama rakk bu jigéen hmm. ba ma France la nekk hmm. fa lay dem bi ñëw moo jébbuloon moo jébbulu soxna may hmm. léegi nag eh, am at moo xam ne dafa jóge France ñëw ma ànd ak moom ak sama yaay ñu ñëw Touba. ñu mhm. siyaare dem ci kër Soxna May. Mhm. mu ne ko kii sama day moom day jàng sa xasay. Mhm. ma jàng fa. teel a moo fa jàngee ba noppi mu ne moom tubaarkàlla njàng bi de baax na tubaarkàlla. ba nu ñibbee euh, defe naa teg nañ ci lu mat ñaari at ba ñett. ma dellusiwaat ci 89 ma toog si Touba. temps yooyu. Euh, bàyyi na commerce di photo di photo hmm. di portale dikkee nag euh, euh, kër sëñ kii Njaay sëñ bi Njaay hmm. doomi lañ soxna soxna dawa ji kii sëñ Seex Marème waaw waaw Cheikh Mariam kër sëñ Cheikh Mariamu mm. sëñ Cheikh Mariamu doomi mm. sëñ Abdoulaye dañ ko joxoon waaw soxna maa ami waaw xeeraat mm-hmm. ba quatre-vingt-neuf damaa toxu si mm. mu am doom mm-hmm. ñu ñu di ko tuddal ci kër gi dikk soxna Daba Fall ni ma nag ah, nañ nañu fa dem ginnaaw da ngay portale suñu demee mm-hmm. su amul photographe mu jël la nga di ko nga fotal ko gént gi su ko amee nag nga nga xam ne loolu yàlla doxal. Mhm. fekk soxna May nga fa. nga soxna May moo dikk moo uuf si doom bi. mooy génn ndeysaan waaw. Mhm. bi ma dikkee nag eh, soxna si ne ko jël naa photographe waaye nag da def lu mat fukki pose ak juróom. Mhm. naa na ko photo daa ko fay. may may photo bi ñu photo boo noppi rek am na photo soxna May boo xam ne boo demee ci këram fee ne. mu muuroo seru rabal. Eh, yor di dollu xasaay. man mii maa ko foto. yaa ko foto waaw gars yu bari dañ koy fotowaat sax di ko def. fii nii waaw seen i kii. ñuy waneeg loolu. waaw waaw waaw. ba ma foto ba noppi nag ma digg na ko man maay maay mag yi kon kay jàngal ma daal teg appareil. jëpp taxaw di jàng xasaay di ko jàngal di ko jàngal bu tubarkal mu hmm. ne ma yokk da ngay ñëw kër ga ndax da nga waxuma sax ci fii waaye naa la ba daaru ba daaru am ndeysaan ba alhamdulilah sa laa tàmbalee dem këram hmm. su ma dikkee nag rek di jàng di jàng rek loolu daa fay def ñu naa la jànkat soxna May. waaw hmm. ba ba ba booba xam nga soxna May fi nekkoon booba. ci doomu Sëñ Tuubaa ci jigéen waaw. Hmm. nga xam ne ñëpp la ñu ñëw rek. ñu hmm, saar ci jigéen ñi góor. tey eh, ma xam ne la. loolu moo ma daal di ubbi ci saasa ca Tuubaa. ma yaatu. léeg-léeg dikk na ma doon jàng yawan wala barasan ba. fekk nañ ko kër Badiane muy jàng ba fii ne sax am na kilifa yoo xam ne. Eh, dañ wax naan ma bu ñu déggee sa kàddu rek nga fàttaliwul suñu bàjj. fàttaliwul ndeysaan waaw. loolu moom la jërëjëf jërëjëf Baye Modou kon nu bàyyi la nga laal ci euh, wolofalu sëñ Modou Mamoun ginnaaw moom lan la sëñ Modou lan la tudde waaw magal ga gaa ngi bëgg a ñëw yi tamit. waaw incha kon lan nga ñuy barkeeloo ci sëñ Modou waaw. Mhm. xam nga am na ñu tu meen sëñ Modou Mamoun. moo ah. xam ne wax dëgg yàlla ci moom la rek waaye sëñ Mbacke. man nag sama bay suñ muur maam Mbàkke moom maam Cheikh Anta moom laa tuddee moom la ma tuddee li mhm. may jébul ci moom laa mhm. jëkk a jébul mhm. waaw maa ngi fàttaliku euh, euh, euh, sëñ Modou Mamoun ci boppam addiye yi ma ko mujjee jox benn montaru montaru ceen waaw bokkoon na ci. bokkoon na ci ndeysaan. waaw jamono yi nag maa ngi voyagé dem Guinée bi a koy ñëw. ah dem Guinée. mu daal di may wax ne ma ah a de tuwaat taal waaye boo nekk mu wutal beneen. Mhm. waaw bii na lool. suñu mën maa ko ci kàlla. wax mhm. la mhm. bàyyi la nga barkeelu ci bopp. waaw wolofal bi nag si wax nañ ne c'est Mame Moussa Ka da fekk Mbacke. waaw ci magasin taalibeem. day daan def bu. yoor yooree bu doxantu bu naaj bi xawee tàng bu hmm. doxantu ba Mbakke hmm. toog ca magasin taalibeem boobee hmm. su fa toogee ba ba xam ne léegi ci sabar yaa ngi jub si mu dellu Daaru Salaam dinañ wax Maam Moussa Ka di doxantu ba fekk ko fa eh, mu ñëwoon ñëwoon ca marché Mbakke ba doxantu ba fekk si Moodu Maamun toog mu dellu koy nuyu dafa def si moom bu fekkee am ab jataay wala mbooloo wala njàng wala xew-xew fi mhm. saasa mën na ca daal di taalif ngis bëgg sëñ bi toog mu nuyu ko mhm. daal di wax ne xaalal muridu sayxu musaraaji ne la xala alaaji man salaaji xaalal muridu sayxu musaraaji ne la xala alaaji man salaaji yaa sayidi maamoona yow alaaji yow doomi siidi anta ma yàllaa ji yow laa di woo wuyu ma yow saa waa ji siyaare naa daru salaam ngir waa ji mooy waaja dem ca safaru xurooji ñëw màggalal safarul xaraaji bay Musaa Ka ne Bamba la yar gaay la roy ñoo naaje ngir fal rey nag du nu rok am naaje Cheikh Bamba la yar roy ñoo naaje ngir falaree nag du naaje Bamba la maamoona fi a faaji yow taal ngay tagg kaa siraaji yow samsu diine yaa alaaji mat ngay siyaare si bi kulli haaji sey ju ko borom jumaa ji noppee goree la luy laaji doo jëw te doo jëw te doo rabaaje te doo xalifa buy xuloog jumaa ji Cheikh Fallu nawloo na la fil aswaaji say wax du deñ martum ngërëm ngay daaje yaa noppi yaa maanu te yaa saf waaji te di nga tuur paaje ndey mbàkke baay mbàkke ngi alaaji bàyye ci doomi baay di alaaji ndey mbàkke mbaay mbàkke ngi tey alaaji bàyyi ki doomi bàyyi di alaaji ñëw bi yoonu makka lil xujaaji jaamam ba moom madina dib alaaji doo njar ci soow mi xam naa waaje réera la na rafle ci sa waaji loo jël ci soow mi xam la doy naa waaje réere la day noo rafle ci sa waaji muhammadul maamuna sool mihraaji sa turoon doo sa turoon day nanu xadaa allaaji muhammadul sool mihraaji sa turu day nanu xadaa allaaji mat nga xalifatu matub alxaaji mat xutbu mat xawsu tadoo la mbaaje njàppe njàmmee ngi lay siyaara min fi jaaji yal naa dajeeg sa boori ceeb yay taaje njàmmee ngi lay siyaare min fi jaaje yal naa dajeeg sa boori ceeb yay taaje mag naa la tuubi ruubi yow alaaji nga jël siyaare ji may aajal mag naa la tubiru bi yow alaaji nga jël siyaare ji fayal may aajal salaalal maa moona silmiraaji loo tax nga def alaaji salaalal maa moona sa turandoo sa turandoo wa tax nga def alaaji barke borom Tuubaa foofu la ko. Hmm, foofu la ko fa saasa rek loolu la ko fekk fi mu toog wax ko. mooy ko fa bayit yi xanaa du ëpp ay fukki bayit ak juróom wala. waaw côté yooyu du ko xaw a daal waaw. Ah, naa xuma lan. Hmm. te way yi day mel ni way wolof la ak arab la boole. waaw dafa dégg arab nag. déggoo mu ne ko njàmmee nga lay saara min fi jaaj. su bëggee ay wax ah. ay waxam day peese. waaw. waaw fekk na nag lay daane waaye waa tax mu wax mu wax mm-hmm. arab bi foofu ndaa mel ni lay siyaara liñ ci jar yàlla dajeeg sa booli ceeb yay taay uh-huh, uh-huh. boobu boobu loolu la ko koy macha allah mm. way na ko ci way yu kii de moom mm. ndey mbàkke bàyyi mbàkke ngirib alaaji bàyyi ki doomi bàyyi bàyyi ki doomi bàyyi ñëpp di alaaji ñëpp xanaa maa ngi cay nettali dem nga maam Cheikh Anta demoon waaw déggoo mu la ko ñëw bi yoonu Makka. waaw ñëw mm. mm. bi mm-hmm. lañ demoon. <coughs> Ah? ma demoon. waaw waaw. ñun ñu dem benn ah, man ma demoon 1918. waaw ah? nga dem ban. 2004. 2004 waaw moo si ah, <laughs> ah. caa nga borom xut ah. léegi ñu de denc foofu ñu ngi ñëw ci sëñ yi moom lañ bëgg a tëjee sax. fu mm. ñuy kii eh, Baye Modou jàng nga tamit yaman. Mm. yaman bi daanaka eh, moo la moo la indi fii nga si moom la leen ñu bare bare bare xame mm. ndax fekk na jàngkat yi ñu bari jàngunu ko. bi nga dikkee nga jàng ko njàng moo xam macha allah ñëpp dégg nañ ko. waaw mu mu kii. waaw yaman bi waaw. bi may dem koñ waar. Hmm. Euh, euh, di ñëw. Hmm. laa dégg bay euh, bay kii Ndiaye ki daan jàng xarnu bi. Mama Ndiaye bay Mama Ndiaye jàng hmm. xarnu bi. boo maa ko di waar. ma dégg ko te oma mbind mi. ma ah, lii de boo demee Sénégal bu mu bi amee dinaa ko wut. bi ma ñëwee Sénégal. ma daal di ñëw fii ci kër maam Moussa Ka. Mhm. ci sëñ Saliou Ka. Mhm. bi nga xam ne moo ko bind. Mhm. ma wax ko ko mu ne ma waaw maa ko bind de waaye moo la guñu ko. ma daal di jënd nag carnet bi jox ko bii nii. ne ko kon dama ko bëgg mu mu daal di mu daal di koy bindal. bi mu ko bindee ba noppi nag mu bindal ma ci yaman bi. ah li mu bindal sëñ Saliou Ka. waaw ah, sëñ Saliou Ka lii la. Oh. yàgg na kii 78 la ko bind. 78 ah. macha allah kii de moo dàq kii bind foofu ñi moo lii xew léegi. waaw waaw. macha allah. mu daal mu daal la ma nag. Hmm. Euh, yow bi ma la ci defal. Hmm. da am na euh, silmaxa suñu daan wax. Euh, cheikh boobu ca Kaolack. waaw moo ko daan jàng mag la. waaw waaye nag ginnaaw am kenn jàngatu ko. Hmm. te xise yu am solo la. da cee am tax ma defal la ko ci. ndax nga mën koo jàng. Côte d'Ivoire laa ko mokkale. ah waaw bi may dem ma yóbbaale ci ma yóbbaale carnet bi. ci loo demee di ko di ko yër di ko yër ba mën ko yëkkati. Mm-hmm. ma daal di dem daayira dimanche jàng ko. Mm-hmm. xoolal gars yi bàyyi